aw euh, firi na ko di ngeen ko gis ci Chérif Dabakh TV bi waaw eh, muy muy kii bii ni ñu koy waxeeti déedéet balaa boobu sax déedéet may ma rek mu ngi nii bii hadihi hadiyatun bi fa jazallahu anna hadihi hadiyatun bi fadlillahi minna ilayka ya rasulallahi wa radiyallahu an cheikhi tijaani wa man lana ilayhi wasilun kashiful ghumami wa man taallaqa bil azyaali xaatibatan subba alayna ilahi abhura al isami wa kulli man talabu saaliha daawatina wa gayrihim min zawil imaani kullihim faqbal ilahi yaa rahmaanu tawbatana bil fadli wal juudi wa ridwaani wal karami kada usuli mm-hmm. wa ahbaabi usuulahumu amimhumu rabbi taamiman bizil xikami wa man lana muxsinun wa man nusiu lahu ka nga fàttee sax Maodo boole na ko wa man nusiu lahu mm-hmm. yaa rahmaanu yaa rabbana yaa rabbana rabbana yaa waasi an ruxumi wama nuwaddi min alazkiri jumlatiha faqbal lana bihim yaa farijal himami ala yonent yëpp jóg mu ne mm, mm, yéen 124 ndax Maodo bu nee ala xadratul ilahi yëpp ay wuyu lépp ay wuyu mu ne tekk dal ba ñëpp yàkkamti Maodo wax ak ñoom hmm. mu ne yaa rasulallahi yéen ci yàlla Moussa taxul mu yëg ba bàyyi de mu ne ci laa bokk rasul yi maam ibrahim mu ne ci laa bokk Seydina Isa yéen ci yàlla Isa ne ci laa bokk mu ne baax ngeen lool waaye waxuma leen ya afdalal wara kay ngeen lool naa leen gëm naa leen waaye waxuma leen yaa afdalal wara ndax li ma bëgg yéen mënu leen ko oh, ki ko mën laay waxal yaa afdalal wara yow mi nga xam ne ya gën la ca gannaaw gën mu ne ko yow sama waa ji loo bëgg bi may woo nii yow loo bëgg ma def mu ne fa nu fii diqin ñaar la fii dayqin wa fii diqin dayqin la diqin la Maodo xol a taxoon muy wax place taxutoon muy wax fa nahnu fii diqin fii diqin mooy place yu xat yi Maodo palaas taxutoon muy xol yaa tax muy wax ka ko doon iñaane benn wasifa du fi amee xol la moo tax mu ne fa haa nahnu fii dayqin mu ne ko te shadidin walam narju faarijan te yaakaaruñ caa jóg mu xam ne yonent bi baax na ubbil na ko bunt yi mu ne si wallaahi ndax porte yi ubbeeku na janoon ak mbir mi mu ne isi wallaahi yàlla ne ko ah danga nga bëgg a jéggi sama waa ji mu ne wal haadi ki ma gindi ba ma yegg si fii. lii rek ah, makaarimi mu ko moo tax saddaqta yonent bi lay waxal de. saddaqta ala ma qulta fi aw di diinina gariban kama fil bad'i yaa xayra rahimi hadis bala badaa gariban wa sa yaudu gariban tuuba lil guraba moom la Maodo woy kama fil bad'i yaa xayra rahimi yonent bi ne ko gaawal borom bi nee na loo bëgg mu ne ilaahi. Ah. xam nga nag Serigne. fajal ahlan Serigne foofu. foofu yow yaa ko moom fa la Maodo ñaanee ndax dafa ni wajal ilaahi ahlana ahla qurbatin ñan ñooy ahlu qurba Maodo dafa ni jaxasol yow yow yonent bi salaa sallam na nga jaxasoo sama deret jaxasoo sama biir. kii ahlu qurbatin ahlu qurbatin mooy waa kër rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ahlu qurbatin mooy ñoom Hamza ñoom Abbas ñoom Seydina Ali ñooñu mu ne jamono dana rëng-rëng gi ku amul maqaama yooyu doo siggi waaw hmm? mu dem ba mu yàgg mu ne faj al ahlana ahlu qurbatin delloo ma si sama maam rasulillahi ndax moom dafa am fu mu bokkee ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom Seyd Xaaj Malik si kumbal ansaar dégg nga mu ni su boobaa nag na nga dekkiwaat sa deret si sama biir njaboot xoola démb ji tey di setu rasulillahi di waatee Maodo moom ku dul Maodo amu si yow soxla Cheikh sax bu ko feewee fii boo ko ne foo jëm mën ko teewaan laa jëm moom moom moom bëgg Maodo foofu la toll billahi tey lu muy nekk setu yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu ma am Maodo ko gënal waaye Maodo moo la ñaanoon vas al ahlana ahla qurbatin muy nag su boobaa nag waa lan la wax lan la tegaat loolu moo gën a yéeme bi taraax waaye man soxla ma foofu yëpp mun na addu aleyha nag loolu yéen ñu ndaw yéen ko moom bi ngeen demee lu góor gi sànq waxoon loolu li sal xaal la dafa ñu xadra bi ku fa ñëw da ngay defaru te doo yàqu Maodo ma ko wax elo eh, xurba yooyu ba ngeen ko amee nag na ngeen ko matte seen dëgëj bi ne waa judi mooy bañ bu dëgër bi na ngeen ko jàppee ndax su boobaa jamono day tar coow bi day rëngi fii day rëngi fii day rëngi fii ku du ku góorgóorlu rek perte nga jërëjëf. ahla qurbatin waaw kay. ahla qurbatin. bokkul ak ahlu. Shuaybu minna. ahlal bayti. waxoon naa ko fi atam. ne ku ma ko firil ma jox la loo bëgg ci àddina. Shuaybu minna ahlul bayt. man de jotuma ko woon jàng sax. billaahi wal kitaabi te télévision la ku ma ko firil ma jox la te Shuaybu bokkul ci ahlul bayt. waaw waaw waaw. lu tax mu lu tax yonent bi wax ne Shuaybu minna ahlul bayt. Salmaanul Farisi baal ma. Salmaanul Farisi ah, minna ahlul bayt. te moom bokkul ci perse la sax perse la salmaanul farisi boo demee ci asahaabu xawla rasul ah, mu turam a nga fa asahaabu ah, mm. xawla rasul turam a nga fa salmaanul farisi perse la woon ah, suaybu ruumee la woon mooy ñi wër yonent bi te nekkuñ woon ay arab kooku bu ko yonent bi joxoñee ne salmaanul farisi minna ahlul bayt waxul ahlal bayt ahlul bayt waaw ah, kañ ñu bàyyi boobu mu tëdd day dem waaw boobu galgal la bu yàgg la benn bi firi naa ko mooy laa tusallu ala nabi boobu moom mayoon naa leen ko cadeau boobu gaa yi dem nañ bu yàgg yàgg yàgg te mënuñ koo firi waxuma ne kenn xamu ko waaye daara la damay ni bañ nit ñu seetaan naan kii dee bàkkoo bàkkuwuma daara la dañuy jamante rek loolu la loolu rek laa ci jublu pour ñu gëstu ji rek bu yonent bi ne laa tusallu ala nabi te yàlla ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi boo ko firee ne bul julli ci yonent bi di yéefar daanu waaw waaw laa tusallu bu julli ala nabi ci kaw yoon nabi mooy avoni lu xatan avoni mooy yoon wu ne doo gis fu mu jàdd laa tara fiha am tan wala iwajan avoni yi nga gis ci senegal yëpp mhm. cocc lay dem avoni Malick Sy but be but la mhm. avoni Cheikh Ahmadou Bamba but be but la ni ngay toppee avenue bi doo jàdd fenn te mu jub kocc loolu la ab yonent jubee ba ca boromam boo koy topp ca yàlla ngay yem bañ ko la gaañ nag moo tax yonent bi ne bul julli ci kaw yoon parce que mën na la faa fekk fiir la saret mën naa dal ci sa kaw wàccal yoon wi mooy bul gàmm ci kaw yoon bul conférence ci kaw yoon bul sabar ci kaw yoon bul ndagar walle ci kaw yoon bul ganale ci kaw yoon ndax ganale màkka yi léegi mu ñëw baare tali naan da ngay ganale indi say tabale tungu tungu tungu tungu tungu ba jant bi sox malade bu ñu wala pour mu dem nga xañ ko ko jël bakkanam te baare yoon a koy indi mm. yonent bi ne laa tusallu ala nabi ilaahi fajal ahlana waaw kañ jërëjëf ahla xurbatin moo tax Seydina Cheikh ne sama taalibe bi jàpp sama tariqa moo gën a jóge yu jege yonent bi shérif bii shérif te jàppul tariqa bi allahu akbar moo tax Maodo ñaan loolu Seydina Cheikh nee na shérif bii xaqan ci deret ak nasab di sëtu yonent bi te jàppul tariqa tiijaan Seydina Cheikh nee na sama tariqa bi taalibe bi ko jàpp te joteewul ak yonent bi dara lu dul maam Adama ak Hawa mm. moo gën a jege yonent bi shérif bi shérif donte yonent bay maamam boobu garanti ku ko mën a tee am ci kaw suuf kenn mënatu ko am ilaahi fajal ahlana mm-hmm. ahla gurbatin wa ahla tibaa'i sunnatin fi zumuran yaa tax Maodo dafa bëgg ñu bokk ci ñi gën a jege ëllëg ñu njëkk a dugg zumur mu njëkk ba xataa iza jaa'uha futixat abwaabuha wala wa futixat abwaabuha foofu la bëgg ñu bokk moo tax mu ne fajal ahlana ahla xurbatin waaye xam na ne lu am na lu daq xurba mu ne wa ahla tibaa'i sunna mën ngaa jege tey jalgati ñaar yu baat yi niroo la jege tey jalgati ñu nekk ci état bi yëpp moo leen di indil musiba nit da jege ba ëpp di jalgati te doo ko wax dara keneen jalgati ca biti jegewu la nga rëq ndigam jege di jalgati mooy indi safaan boo jegee te jalgati woon nag dangay sagal sa njaboot moo ne moo tax mu ne wa ahla tibaa'i sunnatin fi taraaxumi mu ne soo ko amee ba noppi nag waxu mbedd Serigne Cheikh Tidiane si nee na waxu ko am kilifa doo gàggantikoo ci mbedd bu boobaa na addu alayha bin nawaajisi xadiisu yonent bi la yonent bi moo wax sa salaay sallam mu jug jamono seen diine bu ngeen ko màttut ci seen déggéej da nga gis ku jël baaraamam loppati ko sànni ci biti moo tax Maodo su ngeen ko amee na addu alayha na ngeen ko matt bi na waa jisi ci déggee ja na addu alayha bi na waa jisi misla ma qaala mu ne misla ma qaala bihi nadratu haashimi ku ko waxoon mu ne nadratu haashimi sallallahu alayhi wa mu door a ñëw nag naouzu billahi xam na ne boo amee ba noppi. Hmm. seytaane ngi taxaw. waaw hmm. <laughs> ah. te bul bari solo boo demee ci kër. Hmm. kër ga am xaj. bul jël xeer bul jël yet. neel borom kër gi teel sa xaj bi. waaw boo ko naan duulu <laughs> rek mu topp baaraam bi. yow nga am jàmm. <laughs> waaye boo jëlee xeer mu naaw ci sa kaw. gajj la yàqu nga. bul sonn nel borom kër gi xaj bi téel sa xaj bi moom moo xam nu mu koy woowee ree du du du du du <laughs> mu topp ko asseyez-vous mu toog yow nga dugg tranquillement seytaane xaj la bu taxaw kër yàlla te yàllaa ko bind xam na nu muy téyee xajam naouzu billahi ah, loolu lay firi xaj la bu taxaw kër yàlla ku bëgg dugg mu bow la boo ragalee waññeeku wala boo duggee ba noppi muy ñëw di la wër boo ragalee doo toog jeex na ndax xañ neexul ñeme li muy tuuti tuuti neexul ñeme bu dee berger allemand waxe noppi <laughs> moo tax naawuzu billahi min charril kuféeri am nañ lu baax moo moo du ku mën a ñaan la moo tax Alaaji Abdu daf daan wax ne si ñabdu daf daan wax ne maam Abdoulaye Niass moo daan wax ne su ñaan desee nag nañ jox doomu faawaat wele ji moo mën a ñaan mu ne maam Abdoulaye Niass moo ko daan wax ndax moo xam yoonu ñaan mu ne naawuzu billahi yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma min charril kuffaari am nañ lu baax moo tax mu ne min charri xam nga lu baax li mooy lan hmm. tisi bii ñu sol ku ko defar baax na wala bon na tubaab a ko defar gi machine ba ko defar rajo bii may waxe hmm. télévision bi muy génn montre bi ngay seete oto bi ngay dugg ñooma kon baax lañ bon le la wax ne musal ma ca waaye lañ baax le bëgg na min charril kuféeri min charril kuféeri naouzu billahi min charril kuféeri wa min charril nasara xam na ne yéefar yi dañ bari ay branche mu ne nasaraan yi ci lañ bokk wa min charri salatin boo nee salatin nag président dugg na ministre dugg na moo tax mu min wazirin ñoom ñëpp dugg nañ ba ci chef de quartier bi sax dugg na mu door a ñëw min wazirin naouzu billahi min charri l kufféeri wa min charri nasara wa min charri salatin door a ñëw wa min wazirin wa jinnin xeeti jinne yëpp su ma sii ñetti mbon mbon yi ma doon wax yëpp dugg na xeqad la wax su ma sii xeqadin ñi nga xam ne dañ am pas-pasu kiñaan su ma sii xeqadin fam min ak ñi nga xam ne lu luñ wax mu am ayib sëñ Mor nee na 1952 la toog di bind sëñ Mor Diop. Mhm. mu ne de la toog di bind déglu li may wax ne mu ne boobu dafa mën a bind mbind mi rafet. nee na ma toog di bind mu ne gé góor gaa ngi dund ba tey. Mhm. nee na góor gi ñëw fekk ko muy bind mu ne <laughs> mbind mi de comme machine. sëñ Mor nee ne deful vingt 24 heures ñaari baaraam yëpp nii wi. moo ne moo indi baaraamam yi déformé wu ñu. mu ne ay weer mënut dara ci loxo yi. ba ne ba génn góor moo ko jox benn laaya ne ko wax ko. te di ko ci tafli nee na ci la baaraam yi wéete nee na 52 ba 77 bi muy dem Makka muy 25 ans. Mm-hmm. nee na mu tasee teg góor ga góor ga ne ko. <laughs> Ngoor Jóob yaa ngi dund baalaam yi néewiwaat ma ne ko góor gi moom lan la nee na 62 50 77 bi muy dem Màkka xoolal 52 ba 77 25 ans nee muy dem Màkka góor gi gisaat ko ne ko hee dem yaa ngi dund ba tey nee yi néewiwaat mu ne kon ku widdi ne gémmiñ am na da nga dof Ah. moo tax Maodo ne te yonent bi wax na ne walil fammi aybun walil ayni aybun mm-hmm. yonent bi wax na ñaar yëpp boo demee ci Hamziya mm-hmm. am na ñoo xam ne dañ daan toog ci taati Kaaba gi bu gëlëm yi di romb ñu seet ba leen neex dañ koy fixé rek mu ne dal ci suuf. Mm-hmm. maa la ko wax buñ ko fixé rek mu ne dal ci suuf. bët dafa am ayib. waaw ah, waaw surtout nag ku dul tudd moo tax. sumas yi xiqadin fammin maa ngi lay ñaan nga mosal ma ci borom pas-pas bu bon fammin ak borom géy gémmiñ gu bon waayinin ak borom bët bu bon waayinin ak jongoma ju ma lewut waaw waayinin min uurun iin la ko jële fammin wa aynin wa aynin mu door a ñu wa shayatin cheytaan yi nag dafa bari branche moo tax mu ne wa shayatin teg ca wa zaalimin ak tooñkat yi te jógee fu ne wa munaafiqin ak ki ci suñ biir di ñu niru nirul te bokkul ci ñun wa zi xasadin door a ñëw isa xasada bu feeñale ki ki nëbba nëbba nëbba ba mënatu koo mëdd nëbb mu feeñal ko kooku it musal ma ci moom mooy ki taxu ci mbooloo ne la ti nous emmerde doo dara xol baa fees mënatu koo nëbb ka làqatu ca internet di la saaga ci la bokk nëbb na ko mënatu koo nëbb moo tax Maodo boole ko ci ah wa zi xasadin mu ne wa man tafassaqa fusuq nag bu ko arab waxee hmm. ulaayika humul faasiquuna mooy kii def caacaay te du ko nëbb koo koy faasiq ki yor galonu cigarette di kimmi faasiq la waaw faasiq la kooku loo ko wax dagan na nëbbu ko moo taxaw ci mbedd mi dikki mi di sànni loo ko wax dagan ki lonkanteeg jigéen baal ma ci mbedd mi te lawoo ko ah. faasiq la ah. boo ko gisee lu la neex waxal doo ci am sëriñ bi taxaw publiquement nuyu jigéen ba ci buuru màkk bi bu ko dindi booleel ma ko ci télévision bi buuru màkka bi taxaw publiquement nuyu ndaw si jabaru Trump hmm. faasiq la jamono bi mu koy def bàkkaar boo def te nëbboo ko rek faasiq nga ci jamono bi nga ko doon def boo ko tuubee nag yàlla baal la ko. Mhm. mu ngi mel ni sëriñ buy akolaat jigéen ci mbedd mi te juru te du aj koj koj armalam faasiq la. sëñ Moran koy wax démb mu ne balaa may de ñu naan euh, kenn xamul lu sëriñ bi mu ne waa làmboo wut njub <laughs> na ah mu ne balaa may wax ñu naan sëriñ xamuñ lu mu denc waaye dencut sharia charia sant ko mu collaboré jigéen moom mu kii nii ci mbedd la ko nëbb sax au moins mm-hmm. wa man tafassaqa yaa rahmaanu Maodo ma ñaan waxul yaa rahiimu waxul yaa kariimu waxul yaa waduudu waxul yaa xayyu waxul yaa xayyu yaa qayyuumu foofu la fa gën a am doole mooy rahmaan ndax rahiimu dunya wal aaxira la laa ilaaha illallaah te xam na ne àddina lay ñaane yéefar a ngi ci biir ñëpp a ngi ci biir mu indi baatu rahmaan muy rahmaani rahiim wa man tafassaqa ya rahmaanu wa man tafassaqa ya rahmaanu na ji nii nga dégg kuy ñaan nag ne na ji naa yaa gën a jàng Maodo boo na ji nii inna Ibrahima kaana ummatan jaata benn nit la waaye ñëpp la représenté na min annasaara wa man xafaw tariqahum yallaahu yaa xayu yaa man qaala uduuni gis nga boobu xam nga lu tax mu indi xayu yallaahu mooy ismu zaat waaw allahu mooy ismu zaat yàlla tudd nenn lu dul allahu yi ci des yëpp ay sifaat la rek ismu zaat benn la allahu fam na bu boppam nag mooy ismul azamil kabir hmm. waaw fam nëbb boppam moo tax ñu naan ismullahi al adamil kabir waaye laahi lañ njëkk a wax gisoo mm. sew sew bi nekk ci biir Haaji Suleymaan ismullahi al adamil kabir lañ wax waxu lu tax waxuñu ismul ismul jalalil kabir lu tax waxuñu ismul rahmanil azim ismullahi al adamil kabir lañ wax lu tax ñu indi allahu ndax fa la nëbb boppam ismu ismu zaat ba fa la nëbb boppam baatin ba fa la nekk huwa al awwalu wal axiru wal zaahiru wal baatinu moo tax allahu mooy ismu zaat fam nëbb boppam mooy allahul kabir ismullahi al azami al moo tax mu ne yàllaahu yàlla xam ne jox na ko gëddam yaa xayyu gis nga baat bi mu indi ki fàccee ki fàcceewul ci luy dund te luy dund moo ko dundal te moom fàccewul ci luy dund te moo fiy des bi ñëpp demee kon ñaan gi da aba dafa dëppate ko daa iman ndappet la yaa xayyu yow mi fiy des fàcce ci luy dund te luy dund yaa ko dundal te bu ñëpp demee yaa fiy des. mu ne ko loo wax. mu ne ko yaa man xaala uduuni yaa wax ne nañ lay ñaan uduuni astajub lakum jalla wax la indi. wa iza saalaka ibaadi anni fa inni qaribun ujib mujibun dain iza daani moo tax mu ne ko uduuni yaa man xaala uduuni lu mu ci teg inni istajib ah yaa man xaala uduuni inni daawtuka waaye ñemewuma la de za xawfin ànd ak wattandiku ànd ak wattandiku ndax ñemewuma la miinuma la it ndax xam naa la ku la miin danga dana al ku la ragalul dina torox. moo tax zaa xaw fin maa ngi lay ñaan nag fa xus bi yeddi. téyel ma rek sama loxo bi. fa xus bi yeddi. yàlla ne ko lu tax. mu ne ko yaa jaa ilal xaali. baynal kaafi wa nuuni. yaa jaa ilal xaali. baynal kaafi wa nuuni. foofu laa koy taxawee nag. waaye ma indil la ci tuuti rek. yaa jaa ilal alxaali bayna alkaafi wa nuuni inna masala isa inda allahi ka masali adam xalaqahu min turabin summa qaala lahu kun fa yakun qaalat rabbi anni yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar qaala kadhalika allahu yaxluqu ma yasha ida qada amran fa innama yaqulu lahu kun fa yakun badiu samawati wal ard ida qada amran fa innama yaqulu lahu kun fa yakun jërëjëf. jërëjëf waaw. galgal dégg nga wax bi yéeme na. Hmm? huwa alladi xalaqa samaawaati wal arda fi sittati ayaamin wa yowma yaqulu lahu kun fa yakun. macha allah jërëjëf. huwa alladi yuxyi wa yumiitu fa ida qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ñuy ñaata wala di xalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin moo tax Maodo ne ko yaa jaa ilal xaali bayna alkaafi wa nuuni wasalaamu aleykum wa rahmatullah foofu baax baax na ngeen may ma nag ñu jox alaaji ayub fa tabarakallahu lu muy jottali mu jottali ko xaaji Souleymane ñëwal rek ngir yàlla barke sëñ Bay Abdu waaw kañ su ko defee ñëwal nii ah, alaaji ayub bismillah Euh, salaamaaleykum wa rahmatullah. Euh, mbokk yi. ñoo ngi ñoo ngi leen di nuyu. di leen ziyaara. di leen baalu xaq di leen baal. Ah, di wax ni ñu ngi dëggal sang bi eh, eh, góor gi toog li mu wax léegi ci xadara bi. dëgg na yàlla ku fi toog root nga ba doyal. Chérif li mu waxoon ci benn waxam dëggal na ko ci biir waxtaan wi. ndax ba muy wax dafa ne woon du ma kenn fii. Mm-hmm. ndax man baykat bi ak président bi laa yemale loolu nag feeñ na ci waxam feeñ na ci jëfinam waaye nag ku xam fa mu jaar yan loxo la jaar lii du la bett ci moom ndax ku ko xam-xam ne Alaaji Abdu moo day ci xolom te Alaaji Abdu moom la Maamun Sa waxoon wasawi ahlal ginaa wal faqra xataa yadum xat kaana yudrika waaw yamaleel ñi ñàkk ak ñi am ñi lay xas ak ñi lay tagg loolu la def su ko defee ñoo ngi leen di nuyu ci turam kàddu yi du lenn lu dul kàddu ngërëm ak sant dama ko ma ne ko dama bëgg ñëw ba foofu sant la gërëm la ci kanamu mbokk yi ak soppe yi ak taalibe yi mënuma jaru ko ma ne ko jar na ko ndax ku bàyyi yitteem yëpp rawatina mu nekk koo xam ni ñëpp ko soxla ñëpp ko soxla ndax wax naa ko ko kerek ci programme bi ma ne ko am na benn waaye bu ñëw ñu lay jëw mënuma Chérif Tall fu mu toog nettali mag ñi waaye maa ngi lay dee xamal ni ci mag ñi la bokk ah, ah, ah, ne ko man de nangu naa ne ci mag ñi la bokk ndax am na loo xam ni moom ku jaxasoo wala ak mag ñi mënoo ko am waaye loolu lépp cër la cër gi mu wax ci Seydi Hadj Malick mu ne xususiya moom it noonu la amee xususiya ci tariqa bi man ñëpp Chérif jaxasoo ak ñoom yal yàlla gën ko yàggal man ñëpp jaxasoo ak ñoom te Sidi maa ngi lay wax ni problème mu sénégalais wala boog problème mu fi mu toll nii jamono jii wax na ko léegi dem na ba nit ñi amatuñu teggin amatuñu kersa dañuy taxaw di xas nitu yàlla di ko saaga te kersa fu mu dañ dara des tufa maa ngi gis léegi ci yoon yi bi ñuy ñëw suley maa ngi lay jaar baax baax maa ngi gis léegi ci mu waxta yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax benn xadis boo xam ni mi ngi naan li kulli diinin xuluq mu ne wa xuluqul mu ne ci mu waxtawu Maalik ku dem di nga ko fekk ci baabul xayaa mu ni diine boo gis am na jikko ba ñu leen nawee mu ne jikkoy lislaam bi ñu gën a naw mooy kersa. loolu Sidna Omar moo ko firi mu nga ca attaaju jamiul usul Sidna Omar nee na kersa fukki xaaj la. Sidna Omar a ko firi mu ne juróom-ñeenti jigéen ko moom góor benn bi. Sidna Omar nee jigéen bu judd doon jigéen am na juróom-ñeenti xaaju kersa su demee ba bis bi muy njëkk a gis baax nee na benn rot na mu des juróom-ñett. Seydina Omar nee bis bu ñu ko mayee borom kër ba mu jaxasoo borom këram ngeen baal ma ba sëy ba xam ne sëy di saf nee na benn rot na mu des ñaata juróom na bis bu ëmbee ba am doom benn rot na bu dëkk dundeeg juróom-benn yooyu takk sëyam takk sëram te moyul yàlla buy dee di dugg aljana dofis direct aljana la wax mu ne nag benn la ci góor am. kon ala kulli xaalin kersa googu moo jeex nag. moo tax ñu sañ a xas ku ne waaye loolu lépp ñàkk nangu dogalu yàlla la jullit dafay nangu dogalu yàlla yàlla mooy maye shérif cëram yàllaa ko ko may fu ma toog dama koy wax xam na ci dara fu ma toog dama naan man bokkuma ci ñiy wax ni moom moom du nangam ak nangam ndax xam naa ko bi sharafil quraan gëstu naa ko ba xam naa ko xam naa fu mu bokk dafa am benn aaya boo xam ni ci gàttal rek. Mm-hmm. boo demee ci imam Xurtubi indi na ko. Mm-hmm. boo demee ci euh, xaashatu sawi indi na ko. muy maa kaana li mu'mini wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an takuna lahumul xiyartu aaya boobu boo demee sababu nuzul bi mooy ñàkk nangu dogalu yàlla. Zaynab binti Jaas. cousine yonent bi la. yonent bi salaa sallam moo yor Zayd ibn Xaaris. Mm-hmm. Zayd di dox ba xamanteeg Zaynab nopp Zeynab ñëw wax ko yonent bi pour mu ñaanal ko ko yonent sallallahu alayhi wasallam woo Zeynab bu mu ñëw mu ne ko dama laa bëgg may sama doom ji di Zayd ibn Haris léegi Zeynab ne ko bàyyil ba samay frère ñëw ndax mooy sama kilifa muy Abdallah ibn Jahsh Abdoulaye ñëw Zeynab wax ko ko ci gàttal bu ñu waxee ba pare Abdoulaye ne ko waa léegi loo ko ci xalaat Zeynab ne ko man daal ñaari problème moom ma dal ci xale bii ñu ma bëgg may mu ne ko ban ak ban mu ne ko bëccëg jiitu mooy dama ko te ku xeeb sa jëkkër. du ngeen dem du ngeen dem. mu ne ko ñaareel bi moo di man sama xol bi sallallahu alayhi wa sallam la ci yàlla def. moom laa bëgg waaye mënuma ko wax. ndeysaan ne ko kon xaaral ma wax ak Mouhamad dem wax ko ci sallallahu alayhi wa sallam ne ko nag fi mu toll nii bu ñu sañoon nga xool keneen mu wane ginnaaw rek yàlla ni Jibril dama wax ak ñoom. maa kaana li muminin wala muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran yàlla dogal dogalam ni nañ la may Zeynab nañ la may Zeyd ibn Xaarisa nga ni d'accord ca la nangu ñoom ñaar ñëpp ñu maye leen ndekete boobu yàlla li mu ci namoon mooy li mu ci namoon mooy régler problème mu fils adoptif. bu ngeen demee gëstu ko incha allah di ngeen ko ci gis. waaye loolu lu tekki moo di yàlla moo dogal li mu dogal ci shérif. ñun nag dañ koy nangu ak cœur ouvert. moo tax fu ñu fa ko fekk wax ko ne ko xamal ko ne ko nag incha allahu bi mu gis ñu ak mu bañ ñu gis ñun fu ñu toog lu ñu xam ci moom ci lu baax danañ ko wax. ndax looloo ñu war. kon nag ñi ngi koy ñaanal na suñu bés bi ñu jóge barki démb ba léegi ba léegi waa Kër Massar moom la ñuy waxtaanee mm-hmm. sa yóbbante nag wax naa ko Abdoulaye Mbaye mm-hmm. barki démb Kër Massar Cissé jërëjëf ba ñu dajee ca takk doomu Matar Cissé laa ko wax ma ni ko mm-hmm. Chérif wax na ma lépp lu baax ci yow fii nag daa xat mënu ma la ko wax waaye loo xalaat ci lu baax wax na ma ne naa la ko wax mënu ma dégg naa ko te it dinaa ko ko wax ma ne ko wa ma ala rasul illa al balaagul mubin kon nag waxtaanaat di ñëw di la di la seedeel di seedeel mbokk yi ni mënuñu la fay yàlla la mën a fay yàlla na la fi yàlla bàyyi li nga dund yàlla na nekk asakay li nga war a dund ci barke Seydi El Hadji Malick mi doon waxtaanee ko defee maa ngi ànd ak Mor Camara mi nga xam ne moo yor wàllu communication bi mm-hmm. waxtaan nañu ci lu bëri bëri xam naa incha allah dina gën a yaatu dinañ dinañ ci waxtaan mm-hmm. waaye ñu nuy bu baax suñu mbokk mi di suñu xarit di suñu genn wàll mm-hmm. muy ku ku baax di borom cër di Souleymane Ba di ko ziar bu baax loolu mooy topp bu mu nekk suñ daje ñun daal root bëgguñu ci woon wax dara lu dul sant ko gërëm ko ñaanal ko yàlla yàggal ko fi ci barke Cheikh Ahmad Tidiane salaamaaleykum wa rahmatullah. salaam wa rahmatullah Haji Oustaz ñu ngi koy sant xam nga li Serigne Cheikh di wax tey ma doy lan doo doy kenn yaa waaye yaa ma doy loo ci mën tey may sa kilifa mu ne cooy bari doo nekk kilifa mu ne waaye yaay sama kilifa kenn mënu ci dara moom moo ñu doyloo bu programme am bi buy ñëw dafa ma naan fu baax pour ñu jàpp ko fa su ko neexoon mu jàpp rek ñëw yëgal ma léeg ma ne ko fii ba mu yàgg xam nga man sama bopp bi daa woyee di ma ne ko déet foofu fàtte woon naa ne baaxut te doo ko gis ci kanamam ñu changé waat loolu yëpp mbaaxam la fa tabaarakallaahu léegi la fa El Hadj Moussa Waat di jóge ma di ko ma ngi ko wax lu bari ci yow tamit démb sëñ moor wax naa ko ci yow lu baree baree baree bare ndax xam dama xam ne sopp nga sëriñ Mor waaw ma wax ko ko nag kon tabaarakallaahu ñu ngi lay sant yàgg euh, secretaire général di leen wax ne bés ba yal na del siwaat fekkaat ñu fi te foofu la de bu leen ko toxalati de foofu la waaw foofu la de foofu la de la maam Ibrahima waxoon ndaw sa daal te fekk du soxnaay doomam la ah, bunti kër gi ne ko foofu la waaye yow it Ayub makkaan bi foofa la. dañuy dëggal li nga waxoon keroog. waaw ah. keroog Chérif dafa ma waxoon ne ma bu ko tuxal bàyyi ko fii di nga fi am kër dinga fi am lépp fii mooy miqa bi ba mu ñibbee ci ëllëg si. Euh, maire bi monsieur le maire. Mhm. woo ma ne ma euh, dama bëgg nga xam ni dama kontaan ci bés bi danaa la wutal foofu pàkk jox la ko nga def ko daara. ma ne ko nag ah waxu politicien la waaye daal jàpp naa ne ñaan nit yàlla bala yàlla bëgg nangu. <laughs> wallaay ah xol yéene lañ ko ko waxee woon ah, te dina ko def incha allah wallaay dina ko def dina ko def incha allah dina ko def ci kàttanu yàlla incha allah kon ñu ngi lay sant bu baax a baax foofu sa kër la yaa ko moom hmm, dina ko def bu ko deful keneen def ko foofu moom di fa am kër di fa am daara ah, di nga am feneen kër di am feneen daara incha allah loolu la yàlla dogal kenn mënu ci dara waaye daal foofu bu ko toxalati moom ñëw naa garaar naka gis naa ko waxuma la woon dara hmm. ñëw naa fii gis naa foofu hmm. wax naa la ne foofu la ah. incha allah yal na nga ko muurloo nag ak bépp jullit bu la ko yéene ah, ak bépp jullit bu la ko yéene incha allah Hadj Souleymane ñu ngi lay sopp lool rek barki démb laay seetaanaat suñu gàmm gi xam nga dama ko bëgg bëgg ba toujours dama koy seetaan waaye bi may seetaan ba gis xaq xaq yi ma ah ah waay waay waay ak bi la Thierno du tontu ma ne lii tax waxtaan baax waaw ah, ma yëg ni Thierno Bachir kontaane Eh, am ku ma ko doon seetaan ndor mu ne ma dikkati Cerno Bachir day déglu ma ne ko Cerno li mu gëmm noonu nga foog ne ma ne ko ku wax xam na kan la xam na li mu wax gëmmam boobu ngay gis billaay ku wax xam na kan xam na li mu wax xanaa mu àddu wala mu noppi te moo gën a digg arab ci li yàlla bind est-ce que xam ngeen ne. Risaala Thierno Bachir da koy tari comme Fatiha. Risaala bii Ibnu Zeyd. Thierno Bachir da koy tari ni muy taree Fatiha. bu Thierno beneen be Thierno ni muy la koy taree. mokkal xam nga mokkal. donc buñ la koy wax sax doo gëm. Ah, aalim kullu fànnin la Tafsir Gaye bi ma ko fa njëkkee ànd ak moom suñ premier grand théâtre bi ci gannaaw ëllëg sa xam nga na moom kashu bi bay ñëw rek xam na loo bëgg. dafa ñëw mu commencé ci risaala di tari ay bunt tari tafsir ne ma mën de mosuma yaakaar ni sëriñ bu mel ni am na Sénégal gannaaw Alaaji Abdoul Aziz façon mokkal bii mosuma ko dégg waaw mokkal bi mokkal rek moo njëkk a yéeme kon nag la nga def ci xolam ba neex na ko de te billaahi bégloo waliyu yàlla li nga wax léegi lu ne defaru àddina ak àllaaxiraa ngi ci biir te géej naa ci yàlla ne Cerno Bachir géej kontaan na ci sa kàddu ya nga yëkkati keroog waaw loolu maa ngi la koy seddaloo mën naa la ne bul ragal dara. ndax Thierno xam naa ko bu baax a baax. am bés ñuy waxtaan mu ne ma Chérif Ibrahima. xanaa xamoo ne man bu ma neexoon ku ma xool sax dem àjjana. mu ne waaye loolu du dara. tege ci njub moo ko gën. yàlla njub rek la bëgg nañ tege ci njub rek. nañ tege ci njub rek. mu ne xaw ma diw daf fi ñëw ana mu sa xarit la woon. ma ne ko waaw sama xarit la ba tey de mu hmm, géej naa ko gis de ma ne ko mu ngi fi barki démb rek gisee nañ ah, moom dafa ñëwoon fii ne ma dafa bugg doom ma wax ko ne ko am nga doom ma dégg ngénte na te waxuma ko ma ne ko daa doyee di rek baal ko <laughs> ni ma baal naa ko waaye yëg naa ne am na doom mu ne xamul ne bi ma koy wax di nga am doom boobu maa ngi jàkkaarloo ak doom bi billaahi wal bi am koo xam ne dañ toog ci biir néegam kooku man la doon jéem a def yu sew <laughs> man mii yee keroog dama rus ñëpp a ngi toog ay surafaaw nga fa. Cerno Bachir ne ko yow diw yow laay wax. billaahi wal kitaabi boo yaakaar na ni li ngay def xaw ma ko maa ngi la bëgg yóbbu ci yàlla mënuma laa yóbbu ndax sa rëy. waa keroog laa xam ne nag dina defaru ko bu ma rëy nga nga baal ma rek nga dindi rëy bi rek. teyu ko. dindi ko rek taal dindi ko rek keroog laa xam ne dina defaru Cerno <laughs> noonu muy sewalee bët yi bu sewalee bët yi rek xamal ne àddina tukki na mu ne ko billaahi xamoo liy daw ci sa biir deret ji sax maa ngi koy gis sa deret ji ni muy dawee sax man Basiiru maa ngi koy gis li nga lekk fukki weer maa ngi koy gis lu ma fontoo mu ne ko taal lu la neex waxal tuub naa rek baal ma baal ma dama matadi rek Cerno dal ci koom dal ci koom dal ci koom ba mu yàgg mu ne baax na waaye waa ji tal la defaroo ba fii may waxee keroog la defaru moo gën a defaru tey ci kaw suuf mu ne ko may wax nga di ma jaay intellectuel tubaab nga keroog tubaab yi Thierno Bachir làkk mosuma yaakaar ne dégg boobu tubaab jaay nga di ma may wax nga di ma jaay ne intellectuel nga ciim xam dara mu ne ko wallaay taal xaw ma dara man de yow rek laa xam daal lu ma mel nag damaa mata di rek te dëng nga baal ma taal. keroog la defaru de tey moo gën a defaru ci kaw suuf léegi sama keuse la <laughs> léegi sama keuse la waaw sama xarit intime la léegi ka annahu waliyun xamim waaye nag wa maa yulaqaaha illa alladina sabaru ku ko fa xaar sabaru ji ku ko fa xaar la wa maa yulaqaaha illa zu xazin azim ku bëgg dara ca yàlla xaaji Suleymaan ayub foofu la de tabarkalla jërëjëf xanaa de xanaa kañ di nuyoo rek tabarakallaa ndax um, duñ mën a def du dul nuyoo rek te delloowaat kàddu gi di ndokkeel bu baax macha allah maa itam noonu laa soppe Chérif yàlla moo ko def tabarakallaa ndojee ma ne ko ana almet ji tabarakallaa kosal almet ji yàlla na yàlla barkeel tabarakallaa li tax ñu ñemee Chérif nag lenn képp la mooy benn kilifa lañu am muy sëñ bi Abdou xam fi ko Cherif teg xam seen diggante bi may woo di ma yónnee ci gàmm gi fekk na ma fanaan gàmm ni tey damay tegale samay tànk commandé ceeb bu jën bu weex te naan na am bëjëk tabarkàlla am daal fi ma toog rek la ma sëñ woo ni ma kaay foo nekk ma ne ko maa ngi ñëw booba maa nga ndar de sëñ baa nga tiwaawoon ma ko maa ngi nii di ñëw kañ ma départ man ma xam ne temps bi yàgg na mu ne ma demal ma ndax dañ maa yónni. yàlla dogal ma ñëw fii. waaye ba ma ñëwee ba léegi ci laa yeboo ñëw. ndax di ngay dem foo xam ni war nga faa dem dont ni yabaluñ la bu la fa yebalee nga gën a xam ni. dem nga day feddaliku. tafsir bi ñu fekkee wax dëgg yàlla. ñu ngi sant yàlla mi ñu may cër defal ñu tawfiq ñu mën ko fekk. waaye ki nga taalibe ku tollu ci jàng dina jàng lu leerul ci boppam. bu toogee ci borom mayu yàlla dina gindee ko tudd ko yëg ndax danga wax sànq ni taalibe tijaan bi nga xam ni dafa nekk taalibe tijaan moom moo gën a jege Seyduna Muhammad Chérif bu dul tijaan fekk maa ngi jàng barki démb benn benn diggante mu ni laa ilaha illallah ci xadaratul jumaale téere bi di wax la doon wax jàngale mu ni laa ilaha illallah jullit bu toog di ko wax yàlla dafay jël population monde bi yëpp niñ toll ña ca waroon wax laa ilaha illallah te waxuñu ko ñu comptabiliser nañu toll buñ ko waxoon jox ko ki toog di wax laa ilaha illallah loolu leer sama bopp mm-hmm. dem ci biir nag mu ni bu ñu toogee di wax laa ilaha illallah tiijaan bi toog laa ilaha illallah xadaratul jumaa di ko wax yàlla bu comptabiliser jullit yéefar yi waxul laa ilaha ba pare day ñëw dugg ci jullit ñu comptabiliser ña ca waxul laa ilaha illallah jamonoy xadaratul jumaa ñu comptabiliser daj ko taalibi tijaan bi mu ni bu ñu paree ci lool nag taalibi tijaan yi bu ñu toogee ci laa ilaha illallah laa ilaha illallah mën nañoo nekk ay milliers de personnes waaye kenn bokkul ak sa moroom looy wax mu ni ko lu tax mu ni laa ilaha illallah bi nga xam ni moom la yéefar bi di wax est-ce que ki laa ilaha illallah bi yéefar bi di wax pour dugg ci islaam ndax ki dugg ci islaam bu ne laa ilaha illallah benn laa ilaha illallah la moo tax li góor gi wax sànq même bu nekkee mbon ku nekk la nga ca am la nga ca wax pour pourcentage boobu nga cay am mhm. nekkete kon laa ilaha illallah machaari bi li ñuy bëri bëri noonu lañu ñu wuutee mhm. mi mawaarid yi yàlla di branché doomu aadama ci laa ilaha illallah moo ëpp mbindee fii moo tax naanu waay yi di doy waar mhm. léegi nag mun nag buñ paree ci loolu am na ñuy wax laa ilaha illallah ñu àndandoo dugg ci allah biñ ànd dee dugg ci allah ba pare nag am na ñoo xam dañoo romb allah yegg ci waa ji mu ndax yàlla bi mu bindee xarafu abajada yi bañ taxaw daf leen a wax ñu nekk comme ay arwaax nekk koom ay malaayika ñu naawaawaali mu yàlla yëpp ñëw teer ci seen kanamu borom mu bu ñu teeree xarful alif moo njëkk teer ci kanamu yàlla sujjóot yàlla wax ak moom bi lisaanil qudrati ni ko yaa leen jiitu ci wër gi yaa leen jiitu ci sujjóot gi waaye yow laay def nga nekk buntu këru ismullahi bi ñu wax allah balaa kenn tudd tudd alif nga ne ah allah hmm? Hmm? waaw loolu dafa leer dafa lëndëmal sama bopp. Mm-hmm. waaye bi Chérif waxtaanee sànq. Ah. dafay mel ni gag gag ci xam-xam benn benn benn roccantal la rek bu tekkee ko rek yu bari dugg. waaw waaw waaw loolu damaa sant yàlla. Mm-hmm. xam ni loolu. Mm-hmm. yàlla dafa na ma ci tawfiq boobu. mu ni tamit allah allah li gaa yi wax am na ñoo xam ne ci buntu kër gi lan la ñu di wax allah allah. wa ismu zaat am xam ne maqsaduhum azzaat am ñoo xam ne soxla wuñ numéro bi borom numéro bi lañ soxla ah. yal nañu yàlla jotali ci borom numéro bi <laughs> asalaamaaleykum wa rahmatullah ñuy jéggalu ci kàddu gi incha allah jërëjëf dimbale ñu nag sa oyu oh, gàtt yi daal nga ba ko ñu ci bu may ñaari yoon nag waaye buum ñett moom daal fi gën a neexee rek la ko naan kullet ah, te ba na ko la mu naan ah, moom dimbale ñu rek tabaarakallaahu tabaarakallaahu allahu nuuru eh, ñu ngi lay ziyaara bu baax di ziyaare xadara ba nga jógee di xadara Cheikh El Hadji ka ca bopp ba di Seydi Aboubacar si Mansour ak i rakkam yëpp ba ci sa sëriñ suñu sëriñ sëriñ Babacar si Abdoul Aziz nafaana allahu bi barakaati léegi laay seetaan rek 2 ñu teg ko conférence bi mu doon def Pikine teg nañ ko sànq ci biñ jullee jumaa ba noppi da koy seetaan sëñ kii faalang ci wetam euh, nu mu tuddati ki muy fa mag paa bi muy àndal ah, déedéet Mansour Kane dama juum naan Fall Mansour Kane mu ngi ci wetam maa ngi seen alaaji masil la ma ne télévision moo doy waar alaaji masil la dem na màkk <laughs> ñu ngi nii di ko génnee Pikine baarakallaahu ma ne télévision lu doy waar la alaaji masil la mii nga ca màkk ñu di ko génnee Modou Fata Sarr ak ñëpp maa ngi leen ci seen baarakallaahu kon nag benn kàddoo ci des ñu julli gee buñ jullee gee rek comme léegi tafsir bi moo tax suratu nuur bi bu jeexee rek dañuy dellu nañu nañ woon suratu nuur bee tax ñuy wadifa tàkkusaan buñ paree rek bañ ko ñu jàmm rek. ndax heure bii mënoo ci wasifa te wasifa farata la moo tax ñu def ni koor gi rek wasifa tàkkusaan te dagan na. ndax waxtaan wi nii ñu xalaat ne nii lay tëddee ndax tafsir bi loolu moo tax comme wasifa nañ ba noppi buñ paree rek shérif jiitewaat ñu gee suñ noppee nag alaaji saaxo ñaanal ñu yàlla ba beneen yoon incha allah.